voilà comme ngeen ko gisee. deux mots <laughs> s'il vous plaît ah ngi noonu ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax. macha allah yow da nga bokk si xew ma yow doo si kii daal oyo foos. waaw dëgg la maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuy ñi ñuy seetaan yëpp. donc voilà quoi c'est l'anniversaire de du groupe Jolof Band et c'est une de mes meilleures amies Viviane donc moo tax ma taxaw ci taxawaay bi ñëw jàpp. ci gan yi qu'on les place bien que ñëpp kontaan. ren témoignage lañ jël ngir jagleel ko wala jëmale ko si ki nga xamante ne mooy Viviane yow tey en tant que ami comme ni nga ko waxee ban témoignage ngay def si kii di Viviane. Ah, li ma ko xamal mooy baax fidèle à ses amis une mère de famille responsable qui éduque bien ses enfants. et voilà koo xamante ne toujours day bëgg a ci aar bi musique bi mu nekk mi ngi ciy évoluer mi ngi ciy avancer bu baax donc big up à Viviane. Ndeye Gueye Ndeye Gueye sama grande sœur namu nañ la. taxawal taxawal taxawal taxawal taxawal. Yaali Kumba Fall Ndiaye taxawal tey ci borom taxawal Yaali Kumba Fall taxawal taxawal taxawal taxawal taxawal. na ngeen ma baal bëgg yi nga koy fay danga maa bëgg Yaali Kumba Fall Ndiaye. mbokkum ay Ayda Ndaxa Ndiaye mbokkum ndeyu Maguette Ndiaye mbokkum ndeyu Ami Ndiaye xale bi yërëm ndayam taxaw baayam ba mu dem taxaw borom këram ba mu dem sama waajaa ngi suite la ma jëlal chambre la ma jëlal fii ci kaw ma préparé pour moom mag sama jëkkër ñooy ñëwandoo te sama jëkkër ni moom du baale kii lii la def. parce ne moom ko waaye jàppale si nga am ba gis nga sama sama anniversaire la 5 février bi paase moom ak Viviane ñoo ma dooleel ak Anna bi ak Collé Faye ak Valérie Bishop ñoo ma dooleel ba sama anniversaire réussir man ñooñu rek lay dem seen kër barke yonent bi mais Viviane nee naa la lii lu ndaw la ndax xol bi dafa rafet kenn gënu ko nee naa bu wootee xale yu wuy si ko xol baa rafet bu sañsee xale yi apprécier xol baa rafet bu génnee mu def it xale xol baa rafet bu wootee mu fees xol baa rafet boo iñaanee doo am dara doo am la. Viviane bu sama yaay génnee àdduna ñi fi njëkk ci la bokk moog Jijak 2012 ak am kóllëre Viviane lu ma la ma nga ca sama anniversaire bi passé vendredi ba ma ngi ko fekk jeudi ba ma ngi ko fekk Paris mais samedi midi samedi ba le 5 février midi mu ngi fekk Viviane Sénégal ah. mu ñëw sama anniversaire sagal si ma yëkkati alal ju bari jox ma sama waa ji yàlla na ko yàlla lafal cat moom ak Wally Seck dama leen di bàyyi yàlla ngaa ko sama rakk la day doomi banlieue may doomu banlieue kooku sama rakk la ngaa ko ba leen de chéri Fadel noo kooku sama rakk la doomu géejawaay googu nee naa ko loo song da ngay jël pee ndax ki nga yaakaar kenn du ko yaakaar dellu ginnaaw muy sëñ Abdou Karim borom màkkaalimal axlaa yow tamit na foo teg yow nga war a dem xew Ngaaka Blindé maquillé woo ko jotoo ko nga tasanteeg Fadel di ko dala delloo sa sa li nga maquillé ak li nga sañse waaw euh, Fadel njëkkeem laa Ngaaka bu dawaloon yoon man lay jox premier njëkk bi mais dawalul yoon. Ah, loolu garaaw na de man lay jox premier njëkke ndax may magu Ngaaka Guédiawaye may seen ma ci aar bi waaw bu ma maquillé woo dem maquillé Adja make up make ma ca marché Sam. Macky ma jël temps ma jël oto fay oto ah woo ngaa ko jotuma ko ma dem sama kër jënd sama linge yooyu ñuy dindee maquillage te muy jar 1000 francs ma dindi ko sangu ba set taal sama kilim tëdd di xaar woowu ma leen woowu ma leen ba ma dajeeg ñoom Touba ñu fay ma sama xaalis ah, ah <laughs> lan nga koy ñaanal ak lan ngay euh, préparer tey lan ngay waajal tey sa fan si si bés bi dinañ xaar benn affaire comme d'habitude dara gis nga man bañ naa ko ba dama pataa jiin laa def ak sama chemise. soo pataa dangaa jongama ba yàqu jëlal ma lii dangaa jongama ba yàqu. man ak yow jiin laa def ak sama chemise jàpp sama njàmbur man kenn du rey dara sonalu ma man nu may nekkee à l'aise man loolu laay def. dëgg ma koy ñaanal anniversaire am bi na ko def ay ati at parce que Viviane nag borom borom la yàlla na ko def ay ati at barke Cheikhul Khadim mu lu mu ñàkk rek moo ko xañ billaahi wallaahi. mais mu am ñaari événement yooyu tegle nag bu ko waajal benn bi wàllum politique la ne da ngay dooleel Macky Sall force. yaa ko dégg sama ah waaw beneen bi. nekk nag dekk sabar. waaw. Euh, damay damay damay balaa may jëm ci loolu sax damay sargal Mame Boye Diao le 22 octobre ci buntu police Guédiawaye ndax Mame Boye dafa nekk nit ku baax waaw fa mu dëkk fa mu cosaanoo bëgg ko muy waa Kolda aw ma million yu ma may Mame Boye aw ma million yu ma jox jabaram aw ma kër gu ma ko jox aw ma oto gu ma ko jox waaye am naa droit sargal Mame ndax bëgg gi ma bëgg ak njabootam ak jabaram ndax waa Kolda bëgg guñ ma bëgg te waa Kolda dañuy ñëw ci bis bi dooleel ma rek yi fi jëm kanam waaw bi ci des nag mooy mouvement bi ànd taxaw dooleel président Macky Sall par force. par force bee may daaneel par force par force sa bëgg bëgg bëgg. Euh, ngeen baal ma nag du ma mën a continuer wax ji ndax sama borom kër may woo. gis nañ papa Boy Djiné. ki may denc may woo ba ci kanam. <laughs> <laughs>